Alassane Diédhiou ñu ngi lay nuyu. yow yaay quatrième adjoint au maire bu euh, Ziguinchor euh, yow yow yow itam lañu dénk lépp li nga xam ni jëm na ci wàllum pàcc ak euh, citoyenneté xam nga ni ñaari weer a ngi nii euh, Ziguinchor euh, amul woon euh, maire li tax ginnaaw poste premier ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk Ousmane Sonko waaye li jëm ci conseil yi ni ki tey di ngeen fal ab maire bu yees di fàttali ni ayda Bodian moom lañu ñu dénkoon li jëm ci wàllum intérimaire bi waaye laaj bu njëkk bi Alassane mooy est-ce que euh, gënut woon rafet Ousmane Sonko euh, tabb ab conseiller bi nga xam ni tey moo ko war a wutu euh, ci boppu mairie ba. waaw laal moo waral loolu man kii depuis après bu ñu waxee affaire euh, succession euh, Ousmane Sonko wuutu Ousmane Sonko ci mairie bi ma ne ah lii mandat Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ñëwoon euh, trente octobre deux mille vingt et un taxaw Bambaya ne waa Ziguinchor na ci dama bëgg ngeen di dénk ma dénk ma mairie bi mairie Ziguinchor vingt neuf décembre ñëwaat Ziguinchor def ci wone programme bu ñu wooye bopp fële Kanjala donc Ziguinchor wóolu ko ci ci loolu jox ko dénk ko euh, euh, maire Ziguinchor donc euh, man ci sama xalaat bu bu muy dem waroon na ñëw taxaw ak Ziguinchor waaye ne leen man dem mais kii laa bëggoon mu ko ñett at yi ñëw loolu moo tax man bu ñu ci dañuy ci ci fësal seen man ma ne ma kii ma koy déglu ba bu ñu kii jegee ci tabaski bi ñëw fa kii tàmp ma ne ah kii bés bu jege naa kon il faut ma fasal sama candidature loolu loolu moo tax man ma kon da doon xaar Ousmane Sonko joxe fësal candidat wala mu wax leen dara. wala joxe ndigal la ma loolu laa doon xaar parce que tey ma ne kii Ousmane Sonko la ñu dégg ci euh, jiit jiit euh, maire bi Ziguinchor te bu ñu demee ci affaire jongante après day andi ay xëy na yoo ci maire bi d'abord ak ci parti bi parce que ku nekk euh, bu bu ñu ne waaw ah, kii kii kii Diedhiou la àndaloon kii Aïda la àndaloon kii kii Ousmane Sonko kii Djibril Sonko la àndaloon kii Bassirou la àndaloon day andi ay clan ci biir maire bi te loolu jarul ko woon. Ousmane Sonko bu taboon bu ne noo bu bu joxoon yoon ci ko ko defee ci Diomaye comme ñu ko defee ci yeneen ay yeneen parce que tey euh, bu ñu liggéey ñi xoolee maire yi Pastef yëpp Ousmane Sonko moo leen ci moo leen tànn kenn kenn kenn euh, teg ci baat euh, ñëpp dañ ci ànd ñu liggéey ñu gagné ñu ñu ñoo nekk ci maire yeneen gox donc lu mu ci yeneen gox ñun man ku ci ma ma loolu laa doon xaar ci moom def waaw léegi euh, lim nga leen euh, Sonko Djibril Sonko euh, am na Aïda moom mooy moom la ñu dénk intérimaire bi ak yow ngi itam candidat na peut-être am na ñeneen ñi nga xam ni itam fësalagul ko waaye ni ki tey yéen laata ngeen dugg ci salle est-ce que tey mën ngeen waxtaan seen seen biir am consensus ngeen tabb kenn laata Ousmane Sonko di leen woo yéen ngeen defal ko seen bopp. man loolu. bu bu ñu toogee ci di waxtaan mën nañ ko def parce que man de déjà parce que man ma ci ma mujjee fësal sama candidature dama ci man ci bokk ma ci dama doon xaar donc euh, ci man euh, bu doon ay affaire négociation ci ànd naa ci parce que loolu moo tax ci euh, ma ma ne teg teel ma fësal sama candidature parce que pour man soit Ousmane Sonko mu ci mu tànn mu tànn candidat ou bien ñu waxtaan ci suñu biir mais ku nekk daa daa ñëw fësal sa candidature ah kii man waaw sànq wax nga ko euh, li ni mel mën na indi féewaloo seen biir yéen ñi nga xam ni ay responsable ngeen Pastef ci euh, diwaanu Ziguinchor Ziguinchor googile tey euh, est-ce que tey ni ngeen di xoolante yéen seen biir itam mënul dem ëllëg si biir indi répercussion ci parti bi. waaw loolu loolu mun na mun na am mun na am. parce que toujours bu amee jogante après day da ngay gis ay pro recteur ay pro ay pro Diomaye Sonko ay pro kii Bassirou Coly bon loolu lay lay jural ci ci parti hmm. lan moo waral euh, xëccoo bi bari ku nekk bëgg ne euh, candidat la ku nekk ni itam ne bëgg naa nekk maire bu Ziguinchor particularité bi lan la ak yow bi nga xam ne itam bëgg nga ko jiite euh, lu waral xëccoo bi ak ku nekk ne man la dama bëgg a jiite. ah bon ku nekk ak sa ambition. Euh, bon man man bokk man euh, def ma ci ci mairie de Ziguinchor une fixation parce que tey ah, am na fu may suutal sama bopp. Euh, ci ci maa ngi université professeur titulaire ak euh, occupé naa ay fonction yu kawe mais ci lu tax may ki ci ma ci ma pour bugg a def gis nekk ndax dama bugg a quand même sama quatorze ans d' expérience administration mu ci ma jégal ko ci euh, askan ci Ziguinchor ma ci ma def si waa Ziguinchor profité ci sama expérience ci sama carnet d' pour kii euh, développer Ziguinchor man loolu mooy sama ambition développer Ziguinchor parce que man euh, euh, musuma xalaat naa def politique mais bu ma duggee ci politique te pour kii développer sama sama bon sama gox donc loolu moo tax ma kii ma duggee ci ci politique mais mun mun a am lu suqal sama bopp sans i ci ci politique donc tey ak lu ma am ci expérience parce que tey. boo euh, gisee modèle de gouvernance université méngoo na ak modèle de gouvernance ci mairie kii lu ñuy wax ci euh, mairie conseil municipal ñun ci conseil d'administration la o wooye lu ñuy wax ci mairie bureau municipal ñun conseil de gestion ak yeneen ak yeneen nekk directeur du UFR nekk naa chef de département nekk naa vice recteur deux personnalités université donc euh, gérer naa budget xam na lan mooy qui euh, est euh, ordonnateur de budget donc am na euh, expérience boo xam ne mun naa ko def voisin Ziguinchor ci ma ci quand même dimbale Ziguinchor ci développement parce que man avant may dugal l liggéey naa ci coopération bu temps bu ma nekkoon étudiant nekkoon naa ci association en France Eh, créer fa ay association yoo xam ne day def ay action de développement daal ci au Sénégal donc xam naa lan mooy kay coopération am naa carte de boobu laa bëggoon euh, def kii euh, euh, waa Ziguinchor profité ci sama expérience. oui c'est important Alassane Diédhiou maintenant li jëm ci yitte yi yi nga xam ni soxla askan wi bari na loolu Ziguinchor daanaka chantier yu bari foofu taxaw na même bu fekkee ni yow yaa ngi wax ne dafa nekk au ralenti oui maintenant est-ce que yow. conscient nga ci la nga xam ne tey moo lay xaar ci euh, commune ba bu fekkee ni tabb nañ la nga nekk mair ci commune ba. waaw comme maa ngi ci conseil ci euh, ci bureau municipal municipal xam naa lépp lu ci li nga xam ci euh, ci mairie bi donc bu ñu ma tabbee incha allah. Euh, première kii chose mooy def damay réunir les services euh, compétents ak les kii différents kii entreprises bi ak ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngu ci euh, ci wàllum ci réalisation des chantiers ñuy jàngat ñuy def benn diagnostic exhaustif ñu xam laal moo tax li chantier bi nekkul du dox normalement lan moo tax bi mu arrêté ñu ñu wut naka lañ koy saafaral donc euh, kii loolu kii mooy sama sama bëgg ba may jëlee fonction incha allah. mooy mm, chantier yi euh, ñu ngi ci nawet déjà euh, faaw mu bar urgence la yu ci bari mënut a xaar yéen a ngi bàyyi xel loolu. waaw am na ay urgence parce que ci wàllum yoon. am na yu ay gox yoo xam ne boobu boo ko demee yi bi day métti bu ko jëlee oto donc dañuy xool naka nañu defee tamit. ñu nit ñi mën a euh, déplacer facilement en attendant am solution pérenne. Mm. bu bu ma jëlee par exemple sama sama yoon bi Castro. Mm-hmm. Euh, tu sais booy booy dem université da ngay. waaw ah, moom c'est problématique oui. bu gën a métti ci ci Ziguinchor. Mm-hmm. donc euh, chaque fois bu ma ma ci jaar da ma maa ngi xalaat lay lakk la ñuy def pour quand même soulager population parce que tey bu nawet commencé même pour ak am taxi bu ñëw euh, day day jafe donc loolu ay urgence la euh, euh, ci ay poste de santé mm. parce que man ci ma ci ma yore ak wàllum yaa ñu ko gën a mën a xam ba wuy kaat ñi bu ñu mën a defal mm-hmm. ah, xam naa bu baax xam naa bu baax lan mooy problème gi de santé parce que foo fooy jaar ñu wax la appel affaire personnel appel facture Euh, parce que ñoom bon ci euh, ci consultation ak garab yi lañu jël pour fay seen personnel bi. Mhm. te yenn saa yi recette yi du demee du demee noonu donc dañuy am vraiment ay problème pour pour euh, kii jël en charge seen personnel donc mhm. loolu mooy délan délan yoo xam ne fooy dem ci poste de santé loolu la ñuy posé donc am naa xam naa seen bi bët naa naa xool naka laay lañ koy saafaree mu beneen bi nga xam ne itam urgence la Alassane bokk na ci euh, occupation domaine public bi Ziguinchor fës na fa loolu itam loolu nekk mbébétu ñi nga xam ne ñoo di askan wa ndax jàpp na ni itam loolu faw rek ñu daal di si indi saafara nu mu gën a gaawee. voilà loolu ki loolu tam lu am la parce que boo dee ci boo boo boo demee ci marché ci marché Semor dañu occupé ba occupé même ci euh, les issues de secours les ci les bouches d'incendie lépp la ñu occupé boo leen gisee terre terre bu bu bu bu amoon incendie dañu waa SAPO dañu amoon problème pour fay sa ci safara bi parce que dañu fàtt euh, ay ci bouches non euh, pour ci occupation anarchique euh, ñun d'abord ci euh, suñu gis-gis il faut que ñu réfectionner yeneen marché yi comme marché Planéto marché Mariama Sarr et ak yeneen marché ak yeneen yi comme ça ñu mën a délocaliser seen marchand ambulant ñoo xam ne la la voie publique yóbbu leen foofu parce que chaque fois bu ñu essayé di leen déguerpi dañu ne ñoom baax si benn euh, cantine yi fa nekk euh, kenn mënu leen occupé loolu moo tam ñoom duñu mën a dem donc lu ci ñu am nañu ay chantier yoo xam ne pour réfectionner marché yooyu léegi bu ñu paree ci marché yooyu ñu ci ñu déco délocaliser ñu marché ambulant ñoo xam ne ñoo occupé euh, voie publique yóbbu leen ci marché Mariama Dieng ak marché Banete. Mm, c'est important Alassane Diédhiou euh, quatrième adjoint au maire bu diwaanu Ziguinchor ñu ngi lay sant di la gërëm ni nga nangoo tontu suñuy laaj. ok mm, di fàttali ni euh, ni ki tey rek lañu nar tabb ana kan moo war wutu Ousmane Sonko ci bopp bu maire bu Ziguinchor.